alors voudrais jëkk félicité le docteur Sall ak équipe C'est le travail bu rafet bi ñuy def def ko si cadre riposte contre Covid 19 mais diko def de manière générale pour le système de santé depuis ñu commencé riposte bi 2 mars l'Institut euh, Institut Pasteur de Dakar mi ngi au ministère de la santé. mën naa wax ne sax jaxasoog moom jaxasoo boo xamante ne kenn xàmmewul est-ce que kii institut Pasteur la ou bien kii beneen service su ministère la santé la loolu rek day wane ne institut Pasteur dafa nekk dispositif bu am solo suñu système may fàttali ne premier cas bi fii lañ ko détecté au niveau de l'institut Pasteur Dakar boobu léegi nag ñu ngi continuer di liggéey di liggéey liggéey bu mucc ayib si cadre test boo xamante ne du woon test de diagnostic rapide test PCR lañ. mais xam nañ ne pour que ñu gën a mën a efficace gën a mën a jox population sénégalaise li ñu soxla si wàllu sécurité sanitaire il fallait que ñu yegg si test de diagnostic rapide boobu ba léegi ñu ngi siy liggéey tey nag lancement officiel bi la mooy que ne dañ ko commencé di ko produire à un niveau industriel ba mu mën a law ba partout di mën ko utiliser utilisation boobu nag du nekk rek utilisation wu si biir laboratoire bi Institut Pasteur dana ko jox système de santé bi pour que fépp fu mu war a dem rek au niveau national